man mii maanaam agent de l'état la état bi moom lay liggéeyal ma nekk ci service am et boo nekkee maanaam un agent de l'état nekk ministre dafa am loo xam ni daf la war ci état mooy kuréel état bépp kuréel état bu am te ji saytu liggéey bu nga xam ni moom nga koy defal yow danga am obligation fépp fu la wooyee te yoon may ko ko te yoon tëral ko da nga am obligation déglu ko wala nga seeti ko ci liggéey bi nga xam ni état moo la ko sant loolu nag dama ci xaw a xuus tuuti état bi dafa bëri ay kuréel yoo xam ni maanaam day saytu sa liggéey bu ma ciy jëkk lim mooy euh, IGE mooy inspection générale de l'État nekk présidence de la République kooku bu ko président bind lettre di ni ko demal nga saytu liggéey yuy ministre liggéey wala les organes de l'État wala maa xam moo xam ni ay société wala agence day dem fekki leen saytu leen beneen bi Cour des comptes Cour des comptes ay magistrats ñoo fa nekk mën nañoo toog xool ay agence wala xool ay structure de l'État décider dem ni dañuy saytu ci liggéey dañuy dem aussi fekk len ben rek nga ci am droit jóg ñu convoqué la nga dem fa moy bu amé commission parlementaire comme nak fofu c'est le pouvoir manam parlementaire ñom am nañu sañ-sañ convoqué la nga ñëw amna yenen amna ay IGF nga xam ni mooy inspection générale des finances kooku ministère des finances moom nga mën a lettre mu déclenché ko ñëw seet say projet wala say programme am na yeneen aussi am na ay contrôle financier am voilà voilà même le am sax contrôle interne yi nga xam ni ñoo nekk ci sa ministère mais am na beneen boo xam ni ñu président de la république moo ko créé pour maanaam bonne gouvernance mu gën nekk réalité damay wax tey nii OFNAC boobu leen bu fekkee yoon may na ko bu ko fekkee yoon may na ko maanaam mu convoqué ministre man de bu fekkee yoon may na ko mu convoqué ministre du ma sax maanaam soldat la damay xel dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon mooy OFNAC loolu la